ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci daara xikmatul mi euh, nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 ci ñu bëgg a bind seeni doom wala ñu bëgg leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu aju ci waareem yooye mu daan waare ci téereem bu mag boobu nga xam ne lépp ay waar la di silkul jawahir di caqub wurus di caqub wurus silkul jawahir lépp ay waar la sëriñ bi dañuy nettali nag ci waaraate bii maanduk suñ boroom ak xarañam ak kattanam ak xam gum xam mbóot yi ak sew-sew yi ak nit ku ne ni koy delloo ay àqam buñ ko tooñee waaye nit ku nekk itam ni mu koy delloo ay tooñaangeem bu tooñee boroom xam-xam yi dañoo léeboon bu yàgg ne nit ku rey nit lu mu yàgg-yàgg dañ koy rey maanaam liñ bëgg a wax rek moom mooy kama tuddiinu daanu loo def nit rek dees na la ko def ci àdduna sëriñ bi nag nee na bu ñu demee ci téereb al imaamul Ghazali ba ñuy wax ab mas masbuub danañ fa fekk mu fay nett li ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam da doon deeyaale ak sunu borom tabaaraka ne ko damaa bëgg nga wan ma sak maandu euh, ak sa kàttan ak mbir mu ne na koy lijjantee sunu borom ne ko yow Moussa da ngay ko tàng te ñeme te neewug muñ boo gisee lu niru dëgg da ngay gaaw a wane sa bopp yonent yàlla Moussa alayhi salaam ne ko waaw dëgg la de. man de ko ñàkk ak muñ la waaye damaa bëgg nga dimbale ma ci sa tawféex tawféex euh, tawféexale ma ak muñ suñu borom daal di koy yebal ci bëtu ndox maanaam foo am ndox lu mel ni dex ne ko boo demee nga làqutu gis sama kàttan nga gis tamit sama maandu ak mbir mu ne na ma koy lijjantee yonent Yàlla Muusaa dem ci bëtu ndox ba daal di làqutu nis tuuti mu gis waa ju ñëw war aw fas daal di fas wi ñëw ci bëtu ndox bi daal di naan jàpp daal di julli ñaari raka daal di tekki ngiseg xaalis gu mu yoroon mu def junniy diinaar mu teg ko fa ba mu jullee ba noppi waraat aw fasam fàtte fa xaalis ba ngise ga nis tuuti benn xale daldi ñëw naan ca bëtu ndox ba daldi jël ngise ga yóbbu ngise def junniy diinaar nis tuuti rek am mag daal ñëw goo xam ne dafa silmaxa ak gumba bi ñëwee daal di jàpp naan ci botu ndox ba daal julli waaja daal ko fay fekk nag ka fa fàtte woon ngise ga def junni diinaar daal ne ko man de dama fee fàtte sama ngise gu def junni diinaar te léegi laa fi jógee te xam naa ne kenn ñëwu fi kudul yow kon yow rek yaa koy war a jël mu ne ko ah man de dama silmaxa naka laay gisee sa ngise xaalis ba di ko jël waaja daal di mer bocc jaaseem daal koy rey daal di xool gisul dara ci moom mu daal di dem yonent yàlla Moussa daal na sama borom nag sama muñ def fii la mën a yem dimbale ma gaaw xettali ma wan ma lii lu mu Seydina Jibril alayhi salaam dal di wàcc ne ko yow Moussa sa borom kàttanam dafa màgg lool te rëy te xam secret yi ak sew-sew yi xam lu bari loo xam ne ni xamoo ko waaye dana la leeral lépp daal koy wax ne ko xale bi nga xam ne ni moo jël ngi gi def junniy diinaar baayam dafa doonoon employé waa ji waa ji liggéeyloo woon ko lu bari yoreel ko junniy diinaar fayu ko ko kon xale bi jël na àqam muy junniy diinaar yi nga xam ne ni waa ji da koo yoreeloon baayam dal ne gumba gi ñu rayit it ba mu gumbaagut moo rayoon bàyyi ki ko ray kon kooku itam fayu na bakkanu baayam yonte Muusaa nag daal di eh, jaaxle lool daal di gëlëm dal di sujjoot jéggalu suñu borom tabaaraka wa taala sëriñ Tuubaa daal di wax ne ku setantal nettali bii te bàyyi ko xel da nga xam ne yàlla dara nëbbuwul fi moom inna allaha laa yaxfa alayhi shay da xam ne it képp ku tooñ sun borom dana la delloo say tooñaange da nga xam ne it képp ku ñu tooñ sun borom dana la delloo sa àq ñun nag dañuy ñu sàggan ñoo xam ne ni bu balaa xewee duñ seetantal duñ bàyyi xel lu ko waral waaye suñ borom mi dara nëbbuwul fi moom moom xam na lu ne nam koy lijjante ak sew-sew yi ak mbóot yi ak secret yi moom boo ko xam kon nañ wattandiku ay tooñaange ci sunu biir sunu borom dafa maandu maandu gu toll ni Sëriñ Tuubaa day nett day wax ci tasawudu zixaar ne waxuma la doomu aadama yi nga xam ne di suñ borom dalee na joxi xel ñoom waaye bàyyi ma yi nga xam ne ne amuñuy xel sax seeni tooñaa ngi ëllëg yowmal xiyaam ca pénc ma suñu borom dana leen dajale lijjanti ko doog leen a defaat ab pënd jëri leen ñu naaw mu ne bu amee ñaari gàtt ñaari xar yoo xam ne dañoo nekk ci àdduna mel ni mi ami béjjën di mbëkk mu amul amuli béjjën bu ëllëgee suñu borom dana leen dajale ca pénc ma ñoom ñaar jël béjjën yam saxaloon borom béjjën ya saxal ko ka amutooni béjjën mu mbëkk ko nam ko mbëkkee woon suñu borom doog leen def ab pënd jëri leen moo tax mu naan wa yaqaxul xisaasu bayna jamma wa bayna qarna ali adlin samma kon nañ bàyyi xel te wattandiko ay tooñaage suñu borom de ku maandu la ñoo ngi santaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibi yëpp ci liggéeyu daara Hikmatul mi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di sant mbooleem ñi ciy def seen dara ak bon volonté yi ak ñi bokk ci association bi di leen ñaanit numéro bi nga xam ne mooy numéro association bi ku ci defati dara yéen ñii nga xam da ngeen di cotiser ngir ñu defal leen ko ci liggéey bi ku ci defati dara nga envoyé vocal ci whatsapp bu numéro bi wane ne man la diw maa joxe nangam mu jëm ci nangam bu ko defee ñu bind ko loolu danañu dimbala ndax léeg-léeg dara ñëw ci te duñ xam koo ko ci def am ñoo xam ne nag dañ ciy def seen dara rek donte bëgguñu sax ñu xam ne ñoo ko ci def waaye ñu bokk ci association bi dañ leen di loolu ndax bind gi dañuy dimbale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 in uridu illa al islaaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu